asalaamaaleykum mbokki internet uh, wasaare news wasaare célébrité ak lii di Dakar midi tey jii ñu nekk fii si CICES CICES nekk benn lieu bu mythique benn lieu boo xam ne wax dëgg neex la lépp fii lay xewee tey nag benn école bu mag école internationale école bi nga xam ne ñëpp fa lañuy rêvé jàngee muy ENSUP Afrique nekk fële ca Liberté si tey ñoo organisé lii di graduation uh, fii si CICES nan kaa ànd ak uh, le golden boy de la musique sénégalaise kii di gone vraiment ren bi muy Wally Seck kii di Sidi Diop nga xam ne jamono bi fu mu toll nii ñu nar leen ànd ak yéen dégtal leen lépp lu fi xew coulisses yeeg ambiance yeeg ak ñii di euh, récipiendaires yi muy ñi nga xam ne war na leen jox euh, lii seen diplôme tey jii léegi. toppal leen ko toppal leen coulisse toppal leen lépp si wasaare si diggante ak Dakar Midi bu leen bu leen dem fenn yéen ngi si seen bu baax salaamaaleykum mbokk wasaare célébrité comme ni ñu leen ko waxee tey ñu ngi fii si CICES CICES e nag nekk benn lieu bu mythique nga xam ne ay ay grands rek ñoo fi xew tey kii di INSUP Afrique école bi mag bi école internationale bi organisé lii di graduation bu ngir jox diplôme ay récipiendaire am ay étudiant am tey ji ñu am ka nga xam ne ràññeeku woon lool si li muy def doon jàngee INSUP Afrique Assane assan Sarr ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di nuyu yéen waa wasaare yow Omar maa ngi lay euh, jaajëfal bu baax a baax ci liggéey bi ngay def. di nuyu également su cadreur di am mbégte vraiment ñëw tey pour bokk ci ñi nga xam ne vraiment ñoom ñooy jot seen i diplôme euh, tey nag INSUP euh, Afrique euh, woote fii si CICES dajale ñi nga xam ne ñooy étudiants yi nga xam ne am nañ seen diplôme am nañ seen licence nar leen nar leen delloo njukkal noo gisee geste boobu noonu. alors je pense que gest bu ñu war a saluer la ñun ñëpp ñi nga xam ne tey jii ñun ñoo doon jàngee INSUP Afrique. Euh, parce que jàng yombul donc bu fekkee ne da nga def trois années yi nga xam ne formation nga def euh, que ça soit journalisme nga subir comme formation wala nga def banque finance assurance wala nga def d'autres euh, formations yi nga xam ne en réalité ci dure trois ans nga ko def tey ji yàlla def nga bokk ci ñi nga xam ne jàll ngeen phase boobu noonu tey ji ngeen nekk ci beneen phase maanaam phase master beeg yu ni mel sant yàlla la mais au delà de ça itam bu fekkee ne da nga bokk ci ñi gën a itam loolu beneen bon la formation que tu dois subir davantage mais également par rapport ak sa représentativité euh, professionnelle. ok ñuy dégg ne la plupart du temps Sénégal école supérieure privée jàngalewuñu. yow mhm. nga nekk exemple potent ba nga xam mun ne euh, li nga am insu participer wu na si bu baax a baax a baax. ay lekk bu euh, lekkee olom na ko gërëmee coy man tout ce que j'ai aujourd'hui c'est grâce à N-Sub donc foofu laa jàngee euh, journalisme et communication pour trois années alors tey ma am licence donc pour dire que maa ngi am benn insertion professionnelle du nekk ci benn télévision de la place di ci liggéey et puis je pense que N-Sub moo ma am euh, ce que l'on appelle cette main parce qu'au-delà de la formation théorique il y a ce que l'on appelle la pratique maa ngi ci télévision maa ngi liggéey et loolu N-Sub Afrique moo tax tey jii ma am cette possibilité maintenant euh, plus ou moins xam ne dinañ ni l'image de cet établissement mais il faut retenir que la plupart de ces établissements yi nga xam ne tey jii ñu ngi délivrer des formations un peu au Sénégal ñu ngi joxe des formations de qualité mais également étudiants yi itam ñu ngi def seen wareef maintenant il faut faire appel peut-être à la raison à certains ñi nga xam ne xëy na ñu ngi jeter du discrédit à l'endroit de ces établissements en tout cas tout ce que j'ai man ENSUP moo tax tey jii ma am ko et di si santaat yàlla bu baax a baax et di euh, féliciter ñëpp ñi nga xam ne samay xarit la ñu àndandoo yi nga xam ne ñoo def de la première année à la troisième année jii li nga ne tey jii mooy euh, ce diplôme euh, si ok ñu ngi lay jaajëfal kàddu gi rafet na bu baax a baax. merci beaucoup. mbokk internet wasaare célébrité ñu ngi toujours fii nga xam ne mooy CICES Institut Afrique nar a euh, jox diplôme ñi nga xam ne ñooy étudiant am tey jii nii organiser benn fête bu rëy. Euh, Gallo Sow nekk benn exemple patent exemple ba nga xam ne wax dëgg ne yàlla wane ne N6 mi ngi def liggéey bu rafet. moo gën a maa ngi lay ziar mon frère naka yi tey alhamdulilah. lan ngay wax si bés. ah sant yàlla rek bi mu si boole ndax am na ñoo xamante ne commencé nañ ko eggale wuñ ko am ñu ñàkk seen bakkan. yàlla dimbali ñu may ñu taw feex ba fekke ko bokk ci ñi nga xamante ni dañ leen a jox seen ay diplôme nañ sant yàlla di ci gërëm suñuy waajur vraiment tey jii INSUP Afrique euh, ñu bëri doon wax ne euh, exemple naan euh, lii di formation bi baaxul ak leen mais gis nañu yow nga xam ne fa nga jàngee fa nga tey jii nga na récupérer sa diplôme nekk chef d'entreprise loolu liggéey boobu ak ñuy wax noo koy jàngatee non vraiment chapeau à INSUP Afrique parce que jàppale na jeune étudiant Euh, te ñun suñu génération moment bi ñuy ñëw euh, di nekk si études supérieures université metti woon na trop donc ñun ñu ñun ñu yóbbu ñu foofu euh, ñuy defaale suñu formation en même temps université mais entrepreneuriat bañ fa jàngee ak leadership bañ fa jàngee yow xam nga li may wax parce que yow jeune entrepreneur nga yaa ngi sa entreprise di ko gérer di ko doxal man aussi la même chose ak ñeneen ak ñeneen te loolu lépp ENSUP moom moo ko def si ñun donc dañuy remercier ENSUP Afrique di ko jaaree rek ci monsieur Mbengue vraiment moom mi PDG bi ok lan ngay wax jeunes yi nga xam ne tey jii nii ñemewuñu woon INSUB Afrique. mais euh, nan ñëw nan ñëw parce que foofu xam-xam a ngi fa en plus euh, entrepreneuriat aussi ma ngi fa daf lay jàngal leneen loo xamante ni nekkul woon ci yow muy euh, la connaissance en soi surtout yooyu yëpp dafa nekk NSIP te boo ñëwee découvrir ko di nga gën a am envie ou li nga xamante ni moom mooy sa mission sur terre mooy liggéey pour mën a jëriñ ëllëg sa réew. yow tamit di la féliciter bu baax a baax ci liggéey bi ngay bi ngay bi ngay surtout ci média macha allah boobu ba tey yaa ngi def sa sa bon nombre yàlla yow tamit tamit euh, taxawu la yokk aussi sa kattan ak sa man man dama leen di fàttali rek yéen boo ko internet moom il devait être ici mais il a préféré xam nga ñëw euh, wàcc sur le terrain pour mën a wane li nga xamante ni moom mooy liggéey bi UNSIP Afrique def maa ngi lay euh, souhaiter bon vent et bon courage frère. internetu wasaare célébrité ak lii di Dakar midi tey jii comme ni ñu koy defee jël étudiants yi nga xam ne tey seen bés la bés bu mag euh, lii di INSUP organisé ko fii si CICES e muy graduation nar a sàggal ay étudiants am ñu ñu am si kenn nar a waxtaan ak moom tey lan lay en tant que étudiant INSUP. Euh, sa tur tey lan nga yëg tey bi euh, bi nga xam ne INSUP euh, organisé na cérémonie bu toll ni nar leen sàggal. ah mbégte rek laa yëg. mbégte rek ndax fii moom tout est ok. bi ma dugg see fii moom contentement la nekk di dund boobu ba tey. di ñaanal aussi samay mbokk récipiendaire euh, yal nañu jig ñun ñëpp di ñaanal ñi fi nekk ak ñi fi nekkul. ak ñi nga xamante ne aussi jot ñu ñàkk seen bakkan tey jii bu ñu sañoon fii la ñuy nekk. di ko féete ak ñun. ñu jotandoo sunuy diplôme ñun ñëpp. fu ñu nekk yal leen gënal fi ñu jóge voilà. ok kàddu gi rafet na kon. merci. salaamaaleykum comme ni ñu leen koy waxee ñu ngi fii toujours si si e CICES e nag euh, tey jii abrité benn événement bu espécial événement bu rëy ba nga xam ne tey jii école bu mag bi école ba nga xam ne école de référence la muy ENSUP Afrique moo ko organisé muy graduation na a sàggal ñii di ay étudiants am tey jii ñu jàkkaarloog benn see étudiant am tur bi ak sant bi. voilà bonjour monsieur maa ngi leen nuyu bu baax. Euh, c'est Pape Gora Sow étudiant en communication et journalisme voilà. tey jii nii nga nekk euh, récipiendaire nga nar a jot sa diplôme loo yëg tey. voilà je pense que ni comme tout un chacun rek ici voilà fierté lay doon déjà parce que defe naa ni après tous ces années d'études voilà euh, après bo recevoir benn diplôme yoon la ngay koy jot avec la manière avec sa famille toog ñëpp toog pour moi c'est un honneur et plus qu'une fierté vraiment. waaw tey nga na recevoir sa diplôme lan ngay wax tey jii INSIP Afrique liggéey bi mu def si yow. voilà INSIP en terme même de waxuma sax lu mu ñu jàngal mais aussi en terme de de de de management de développement personnel aussi man yokk naa ci lu bëri. jàng naa ci lu bëri ci INSIP yaa ngi comprendre jàngal nañu lu bëri avec des trop communs vraiment avec des cours aussi on les remercie de passage tout le monde vraiment parce que là tu vois INSIP Afrique que ni. Donc, nous, nous, nous, nous, nous poussés à faire des, des recherches par rapport à l'innovation des études supérieures pour pousser les gens vraiment à faire l'entrepreneuriat, mais aussi une bonne formation de la permettre. Si tu entreprise, tu ne vas, tu vas pas trouver beaucoup de problèmes. Ok. Comment as vu l'organisation parce que lii faral ñu ko di ko gis ci Sénégal la plupart du temps dans les pays extérieurs comme les États-Unis da koy faral di gis tey mu am Sénégal une sub-Afrique def Euh, ménager si nag kii euh, moyen bu ngante nan nga ko non ENSIP c'est l'organisation ENSIP ENSIP fekkee yaa fa di fa jàng wala xam seen mode de management notamment notre DG monsieur Meng ñu koy féliciter de passage ki nga xamante from zéro to hero ci suuf la commencé tey ba bâtir benn benn benn benn empire quoi kon tey kooku icône la référence la kooku lu mu organiser lii ENSIP gisoo étudiant ENSIP yi sax bokk ñoo ñeneen bu ñuy def tey da sentir que ni voilà y a une très différence entre ñoom ak les autres parce que tu vois inculquer ses étudiants voilà. kaddu gi rafet na ñu ngi lay jaajëfal. ñu ngi tudd euh, fii nga xam ne mooy Ciss euh, nag tey dañ si wàcc école bu mag bi di organiser war a graduer ay étudiants lan lañ jox di couverture santé bi. maa ngi tudd Mouhamed Diagne euh, nekk un nouveau diplômé en journalisme et communication fii ci Elsub Afrique donc tey mu doon bés bu bés bu ñu neex bésu mbégte bés boo xamante ne année yi nga xamante ne année de souffrance la ñu muñ lu bari dékku yu bari tey école bii di Elsub defal ñu feet bu mag bi duñ def lu dul kontaan ñu nekk fi en présence avec nos familles nos amis les gens qui nous sont proches ñi nga xamante ne depuis le début ñu ngi ñu soutenir si suñu processus bii di ñaan yàlla diplôme bi mu jég ñu ñun ñii ñëpp tous les diplômés diplôme bi jég ñu ay liggéey yu yu bakkene ay liggéey yu yu barkeel topp ci si barke Seydina Muhammad lan ngay lan ngay wax si liggéeyu INSIP Afrique liggéeyu INSIP Afrique c'est c'est un travail de qualité vraiment avec des professeurs très qualifier un service fiable mu école boo xamante ne ku gis organisation bi nga xam ne du université bu ndaw donc ay professionnels ay ñu mën seen liggéey ay ñu yéene sénégalais yi ñu am une formation de qualité ñoo fi nekk parce que lii ñun bi ñuy doon xale dañ ko doon xool ci internet les universités américaines ñoom ñoo doon am genre cérémonie de graduation yu mel nii donc tey bu ñu amee ENSUP Afrique mu ñëw indil ñu ko ñun doomi Sénégal duñ def lu dul kontaan si di leen si remercier di ñaan yàlla yàlla na école bi jën a gëm kanam que diplômé yi yàlla na leen seen jik ñoom ñëpp. amiin kàddu bi rafet na ñu lay jaajëfal. ok. de leur capacité à innover à entreprendre ils démontrent leur talent affirment dans différentes activités. Ils sont nourris au culte de l'excellence. du dépassement de soi, de la solidarité. Ainsi, à travers des projets innovants, les étudiants acquièrent des compétences de la vie professionnelle et apprennent à prendre en main leur destin. mbokk internetu wasaare news ak lii di Dakar Midi ñu ngi fii toujours si si sees ñu jàkkaarloog suñu professeur ka nga xam ne institut la nekk mu nekk fierté ba nga xam ne tey jii euh, moom teew na si bés bi ñu ngi lay ñu ngi lay waaw delloo ziar kontaan ci seen teew fii parce que dafay firndeel ne am na li nga xamante ne def nañ ko ci yéen vraiment yéen nañ koy jëriñoo di ko jëfandikoo loolu suñu mbégte la pour ñun. tey lan ngay si organisation bi parce que doo gisee nga xam ne y a un travail derrière waaw di féliciter d'abord MSUP euh, euh, Afrique parce que vraiment affaire bi nii nekkul euh, nekkul ñëpp ko ñeme. parce que ay comme ni nga ko gisee organisation bu rëy la et puis euh, di féliciter aussi madame Sarr ak monsieur sar nga xamante ne professeur Alioune Sarr moom mooy chef d'orchestre bi lii lépp ànd seeg étudiants yi et puis euh, te te dafay dafay firndeel li nga xamante ne moom la ñuy jàng étudiants yi maanaam implication engagement volonté et cetera. ñi ngeen gis ñuy jouer yëpp sur la scène ce sont des étudiants et seen professeur développement personnel. monsieur Alioune Sarr moo leen tàggat et puis donc euh, voilà quoi donc cérémonie de graduation euh, occasion la pour euh, féliciter ñi nga xamante ne ñoo ñoo ñoo doon jàng pendant plusieurs années maanaam consécration la ñu ñëw ñu jox leen seen diplôme en présence de leurs parents mais également occasion la pour ñu pour ñu gën leen a sas gën leen a yab leen aussi ne leen yoon bi jeexul. effort bi ngeen def ba jot seen diplôme effort boobu ngeen di gën a continuer wala ngeen ful ko pour mën a déwén bokk ci ñi nga xamante ne ñoom la ñuy tudd ci réew mi ñoom la ñuy naw quoi seen xam-xam ak ci seen euh, compétence. Mm-hmm. yenn étudiants yi à chaque fois dañuy soulever benn question mooy la qualité. ban jéego ngeen si nar a def après. qualité ci wàllu qualité de l' enseignement la qualité de l' accueil. waaw waaw waaw qualité de qualité de l' enseignement loo xamante ne toujours dafay nekk en en perpétuel Euh, recommencement maanaam toujours dañ koy remettre en cause loolu c'est normal école boo xamante ne remettre en cause qualité de l'information avancé wul et bizarrement qualité de l'enseignement bi nekkul nekkul école bi ci boppam moo ko war a foofu remise en cause nekkul ci école bi la jógee mais toujours dans le milieu dans l'économie dans le marché de l'emploi foofu la jógee toujours est-ce que formation bi adapté na est-ce que formation mi ngi évoluer avec les besoins de avec les besoins avec les besoins du marché est-ce que étudiants yi ngi formé yi ngi inséré wu est-ce que ñu ngi góorgóorlu xam nga parce que école du la jox benn xam-xam boo xam te da ngay dem ak moom pour toute la vie école xam nga lu mu lay jox école da lay wax foo toll da nga war a jàng foo toll da nga war a jéem foo toll da nga war a la école di jox pour nga mën a méngóog foo toll ak jamono donc loolu loolu la donc donc c'est normal que école à chaque fois ñuy remettre en cause qualité ñuy interroger qualité de l'information mooy loolu dafa wane rek soussi adaptation formation ak emploi waaw kàddu ñu ngi lay jaajëfal. jërëjëf man maa ngi leen di leen encouragé aussi ci liggéey bi rafet bi ngeen def. vraiment di leen gis naa liggéey bi rafet bi ngeen def ci internet. et puis ànd ak professionnalisme. et puis ànd ak góorgóorlu je pense que loolu mooy message essentiel étudiant fu mu toll dafa war a góorgóorlu jéem a avancé merci beaucoup. on a tout en commun le plus à qui n'a-t-on les mêmes porte et branche partout la même selle des chants différents mais on vit sous le même toit. Dëgg la